jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ni ma leen ko waxee ba tey rek ñi ngi tey fii ci parcelle ñi ngi fii tey ci Kër Massar parcelle unité 14 muy loo xam ne yaakaar naa ni euh, nawetu daaw bi Kër Massar dund na ci loo xam ne kon war noonu waajal ren waaye ren lii ñu gisagum tiital na képp koo xam ne yaa ngi yeewu ko Kër ma Massar rawatina unité 14 fii ma taxaw nii nag ci kaw terrasse la fekk naa fi benn famille boo xam ne ci suuf la ñu dëkkoon ndox mi nangu ci suuf ñu daw yéeg ci kaw te ci kaw plein air la fi ne nii yàlla na yàlla def suturaay bu tawee amuñu fu nu fanaan dañuy obligé wàccaat ci biir ndox mi danoo yéeg ci kaw nii terrasse bi pour jéem a ut fu nu añee loo xam ne population Kër dund nañ ko daaw fas yéene ko dundaat ren autorité yi ana ñi nga xam ne ñoom la war a dimbali askan bi metti na loo xam ne nag Kër Massar dund na ko ñuy ñaan daal képp nuy bàyyi xel dina seetaan nga fexe gëstu côté bi nga xam ne mooy unité 14 ndax sonn nañ te ñetti taw lañ amagum ku baax nuyu naa la. maa lay fay. tribunal la Souleymane Gueye. Souleymane fii nga dëkk. waaw fii lañ dëkk waaw. tey ñu gis mu taw biig seen ci lañ suuf lépp di am ndox tey ngeen di aw ci kaw terrasse bi ñan ngeen di jànkuwanteeg ndox mi gis na ne seen bagage bari yàqu na. oui lu métti trop la na trop vraiment quoi parce que mën naa ne ci ndox mi lañ fanaan ba asamaan set gisoo darab yeeg yëpp yëpp ngi nii veeree matelas yi nii yëpp nii veeree amuñu fuñ fanaan instant yi sax fi na bu tawee mooy loolu duñ xam fan lañ fanaan parce ci kaw amul kii amul mbaar te bu tawee duñ am fuñ fanaan fi ne nii moom xam naa ci biir ndox mi la ñuy fanaan metti na trop quoi ma sama mag bi ñun ñoo fi dëkk waaw. mais lii yaakaar naa ni eh, déwétu daaw fi la la fekk. non daaw moom fekku ma fi mais ren moom fi la fek fekk ñu gis lii leen wër lépp ndox la. fii lii na moom kër gi wala da ngeen a loué wala. non dañ fay loué rek. ana borom kër gi borom kër mi ngi fi de mais moom dëkkul ci kër yi dañ fay loué quoi. lan ngeen di wax autorités yi nekk si gox bi pour ñu dimbale ndax mi dëkk fi sax dafa wóoru wóoru xanaa ñuy jàppale ñu rek dimbali ñu rek wutal ñu fu ñu dëkk wala ñu wutal ñu fu ñu fu ñu nekk daal lu ñu may ñu makkan bu ñu nekk wala ñu jàppale ci ndox mi bu baax parce que sonn nañ trop quoi vraiment quoi. kon yëpp ak xale yi xale yi nii war a jàngi des fois bu ñuy jàngi dañuy dox moom daal métti na trop daal. waaw xuus beeg yooyu yëpp vraiment quoi métti na trop. ah waaw xam nga li ñu naan lu ne fang kenn du ko jeex. yéen ñëw ba gisal seen bopp ñun li ñuy dund ñun nag yàgguñu fi mais li ñu dal ni métti na trop parce que biig si guddi ba léegi kenn nelawul. ñu nelaw ñu ñuy ŋàcc ndox di ŋàcc ba ndox mi gàññañu bon ñu baar ay xiif mais dara ñu ngi ñuy yëg ci kaw nag ñoom ñoo ko gisal seen bopp nañ ñu dimbali li laay war a suuli ñu utal ñu ay canal d'évacuation wala ñu gas fii bassin bassin bu mag boo xam ne ndox taw bu ñëw mun na wal dugg ci biir bu pare gars yi récupéré ko jëlee ko fi mm-hmm. loolu itam buñ ko amee baax na wala wa ilaa bu ñu amee tamit dëkkuwaay baax na. ba pare ndox mi wóorul ak xale yi. wóorul dara ndax tamit uh, gis nga leen suba ba léegi ñoom tamit ñu ngi ci ndax tey jii booy ŋàcc ñoom it ñu laaj porte net papa damay ŋàcc doo leen ko mën a tere nga bàyyi leen rek ñu nekk ci xam daal ñu ngi noonu daal ku ñu dimbale daal ñu jël. waaw li moom métti na trop wax dëgg yàlla. jërëjëf na te boo xoolee ci buntu bi sax gis ngeen ndox moom am na ay jën. Mhm. moom la xale yi di jéem a napp noonu. Mhm. waaw keroog gis naa fi benn uh, li ñuy wax njàppaan xam naa xale yi génération yu xamuñu mbàpp njàppaan mhm. ndax benn rab la moo ëpp muus. mais tollul ni xaj. Mhm. waaw te loolu yëpp wóorul kenn xamul mais mu ngi ci ñax mi fii di guddi gu ne day génn di ut lu muy lekk bu paree duggaat te loolu yëpp wóorul leneen ak leneen mun na fee na. papa maa ngi lay nuyu. maa ngi fay bu baax a baax. tur bi nan la. man maa ngi tudd Saliou Ndiaye. Saliou Ndiaye ñu fekk la nga xuus ci ndox mi tey jafe-jafe ti waaw ci unité 14. jaaxle lool nag ndox mi yàgg ak nun fu na dugg nan fa mun ñoo fexe ba mu deñ te ñii ñoom danoo jënd seen i kër ban leen leen koy jaay dañ cee boole noonu arrondissement arrondissement waaye ab dërëm defuñu ko ci Macky Sall fii Kër Massar moo fi gagné cent pour cent waaye ndox mi ne ñu ngi bëgg a dee suñ di suñ mboolem suñ suñ maag yi damm nañ ci ndox mi nun paa yi màggat feebar nañ ci ndox mi kenn mën a génn tey jii tey jii tey jii amul kenn ku añ parce que amul kenn ku fu mën a jaar ba dem marché xam nga loolu métti na léegi nag Macky Sall nañ dimbali ngir yàlla parce que ni Kër Massar mu geestu leen ndox mi ngi ñuy bëgg a rey te yàgg na lool nag depuis 2007 ak léegi mi ngi ci ndox mi ñu yaakaar ne moom bu faloo ñu fal ko mu ne danaa def lii danaa def lii dana def leen li ma waxoon defu ci dara ndox maa ngi ñuy bëgg a rey nañ jàppale ngir yàlla yonent ba waa Kër Massar sonn nan de sonn nan de te te te amuñ lu dul te moom dong lan yaakaar ginnaaw yàlla nan ginnaaw moom dong lan yaakaar ginnaaw yàlla nañ jàppale tey jii am na ñoo xam añuñu man mii góor laa tey maa demoon marché ndax sama soxna amuñu fenn fu ñu jaar sama diggante yàlla man maa dugg woon xam nga loolu métti na torop sama waa kër ñu xëy mburu sax maa ko jëndi loolu xamal ñaaw na torop te ñi ban danoo fay seen. mais ana bi ne fii maire bi maire bi na nga xam ne moo war a saytu gox bi. ah maire gox bi daal man wax yàlla man maire gox bi 100 pour cent bu ma xam ma ko man wax dëgg yàlla ñun daal ñun maire lan xam ak Macky Sall dégg nga lan xam ak Macky Sall mu jàppale na waaye maire gox bu ma xam fii 100 pour cent bu mën a jooyal fii ma ko waaw moom daal Macky sal daal nañ dimbali. ñun son sonn waa unité 14 ak 15 ak tépp ndox maa ngi nii ñu ngi bëgg a dee tey maa demoon marché maa jënd mburu te am naa juróom benn juróom-ñaar fukk ak nangam nan jàppale. yaay booy maa ngi leen waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di noo tudd. maa ngi ba Dieynaba Dia. ba fii nga dëkk. waaw fii laa dëkk sama kër gaa ngi ni Euh, nooy dundeek ndox mi. maa ngi nii man kay chaque année nii laa koy dundee chaque année sama biir kër nii la feesee maa ngi nii te ci laa yendu sama doom yaa ngi fii sama jëkkër mu ngi fii mënuñu sax jaay mënuñu liggéey mënuñu xëy mënuñu def dara amuñ lu ñuy toggee amuñ lu ñuy nekkee amuñ lu ñuy naanee ñoo ngi suba ba léegi ñoo bu ñu yeewoo ba léegi ñu ngi ci ndox mi. Macky Sall nañu dimbali lillaay rasuul nañu jàppale yàgg nañ ci ndox mi loolu te toujours nii lay mel sonn nañ ci nag sonn nañ ci guddeeg bëccëg nañu jàppale ngir yàlla rek. lii ci ndox mi tey jii est-ce que wóor na xale yi ci ci ndox mi tey ci gis na ne ndox mi setul xale yëpp dañ leen tëj ñu ngi nii ci kaw sama waa kër yëpp ñu ngi ci kaw yàlla xam suba ba léegi man rek maay dem maay ñëw amuñu sax nu ñu lekkee man maay def lépp suba ba maa ngi ci ndox mi gis ngeen ma maa ngi ni suba ba léegi awma li may demee maa ngi ni te ñàkk mënu maa ñàkk dem ndaxte awma ki may demal waaw daaga fi nga dëkk waaw fi laa dëkk waaw jafe-jafe ñu gis la nga ne ci biir ndox mi waaw lii moom mun naa ne lii lañ dëkkee lu suñu yaay ji wax maanaam loolu lu wér la ay at a ngi nii lii la dund heure bu nawet bi ñëwee rek dañuy solo ñu gis daaw Kër Massar daanaka ni fi ndox mi mel àdduna bépp gis nañ ko est-ce que euh, lii waroon na dalaat Kër Massar ren. waaw lii moom warul dal Kër Massar ren ndax waroon nañu maanaam fagaru maanaam defaluñu maanaam suñu dëkk bi ndax Kër nekk na dëkk boo xamante ne jamono ji bokk na maanaam ci dëkk yi nga xamante ne fii Sénégal rëy na trop kon lii dafa ñaaw ci gis-gis. ñu koy gis rawatina fii Unité 14 sonn nañ torop suñu yaay yi sonn nañ paa yi nañ ñun jeunes yi sonn nañ waaw bu ñu jàppalee nag ñu jël. waaw ndeysaan gis nga Kër Massar fii ci Unité 14 gis nga lii fi xew mbedd moo gis rek ndox la. mbedd moo gis ndox la te doole bariwul ñi ñaa ngi dund loo xam ne fii yaakaaroon naa ni Kër Massar ren lii dootu ci amati problème waaye lii ñu gisaat fii ci Kër Massar daal eh, bu arduwul mën naa jur leneen lu raw lii fii fépp ndox la fii fépp am ndox la foo jaar am ndox la. jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Kër Massar ñu fekk fi benn soxna su xam ne ci ndox mi leen ko fekk kër gi lépp indoo ne néeg yeeg salon beeg waañ bi tudd. maa ngi tudd Ndeye Ndiaye. Ndeye fii nga dëkk. waaw fii laa dëkk. ndox mi ñu gis ngeen ne ci biir ndox mi tey. ah xanaa di dund ay jafe-jafe rek nag depuis 2005 ba tey daal année bu tawee bu ne nii la ni mel gisaguñu nag kenn ku ñu ci dimbalee leen lu dul ñëw di wax di dem rek. ku fi nekk maire daal boo ñee ñëw nga fi nun duñ ko gis sax far nag te maire marché bee lay yem bu fa waxee la mu fay wax demu yoonam duñ ko gis duñ ko dégg te nun 2005 cinq tey daal bu tawee ba tey nii la ñuy jàppoo daaw danoo génn man ak meen ba muy dem luye ji te xam nga luyaas bi moom ku xam na la ci nekk neexut ba pare sax da ngay wër a wër wër ba bëgg a dee te ko gis sax far lii tey nan ngeen def ba taal añ mooy problème xanaa mépp suñu bagage yëpp dem ca kaw ca kaw la bi nu daal la meeb la am ci bagage lépp li nu nga xam ne moom la ñuy soxla yóbbu ko ca kaw fa nu ndékkee fa nu añee te ndax lii xam nga ne kenn mënu cee fanaan. ca kaw mbaa am na mbaar a fanaan. Ah, moom. plein ah, la kay. lan ngay autorité yi nga xam ne ñu ngi lay dégg parce que lii yaakaar naa ne Kër Massar waratu koo dund ndax daaw gis na li Kër Massar daj kon jii waru woon ah, xanaa ñu jàppale nu ci rek ñun de ku jàppale ci canal yu baax daal nu sant la lool gërëm la ci loolu daal lanu lan lan lay lanuy ñaan autorité yi yi ci réew mi bu ñu mënee dimbali ci canal yu baax defaral na sunu ñax mi itam ndaxte ñax mi itam moo yokk ndox mi rek gis nga ko ne mu mel ne. mais lii ah wóorut kay xanaa ñàkk pexe rek ñàkk pexe doo nga leen fiy dundee de ndax itam doo am sa kër ba noppi wàcc ko nii bandoo ne ko dem boo demee day gën a yàqu. xam nga ne lii nga fi nekk nii tey di def di ñag-ñagal akas niiw bu ndox mi deman tey nga nekk fi war a raxas wala nga war koo fomp su doon dangaa dem luye ji feneen fu gën a sori wàcc ko fi boo ko fi wàccee kër gi day dem ba daanul boppam léegi nag bu nu mën autorité yi mën a dimbali daal defal nu canalisation yoo xam ne bu tawatee dun génn moo nu gënal ku nu ko defal di nag la ci sant di la gërëm di la sant nag yow Fadel mi nga xam ne yow moom yàlla rek lan lay bàyyeel ndaxte lii kat yàgg nu fii dund te gisuñu ku nu ko fi defal ñoo lay sant bu baax di la gërëm yaag sa caméraman bi jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz li ma leen ko waxee ba tey waat ñu ngi fii ci eh, unité waaye ma fekk fi sama benn koo xam ne wéyjur la ci man ma miin ko ngeen miin ko waaye mu yàgg dund jafe-jafe bi waaye biig nelawul nelawul li muy taw lépp maa ngi koy xalaat parce que xam naa fi mu dëkkee bu tawee du ne ci jàmm tey xat na ci ñun waaye mun na koo ñàkk seet si tey gis li muy dund ci ndox mi tey Maguette maa leen. maa ngi lay fay Fadel. naka coono yeeg jafe-jafe. sant yàlla rek sant bu baax mu metti lool nag ni du ko muñ te di jullit di ay gor am loo xam ne boo ko muñut it da ngay rek 4 heures du day la ma sama doom ju góor yee ne ma jógal néegi ndox mi dugg na ci ma ne bërit jóg sama doom ju góor ju ndaw jee mat laa bi tooy xip ak ndox mu ne bërit tooy xip xale ñaari xale yee ma yor tooy xip ci seen mat laa ma jóg bërit mënatumaa wàcc ma dal parce que damaa déggoon ñu ne boo nee di nelaw dalal tuuti ma ne lan mu ne ma ndox mi dugg na ma ne hee lii de xoom fu ñu koy waxee ji fu ñuy waxee yeggaleeguñu rek magasin bii amul bunt ndox ma jaaf naa bëx bëx bëx bëx bëx di dugg di jóg taxaw kenn mënatu la tëdd nelaw ma jaaxle lool xaw ma nan laay def ba bët set nelawul xale yi ne yaay maam ku nekk wax ma ne leen yàlla doo nga fi des nag man mënumaa génn yéen mënu leen a génn xaw ma nan laay def naa toog fii bu dem añ bu ma mënta añ sax naa toog du ma añ bu ma mënta ndékki naa toog du ma ndékki ndax dama doon génn di wut ndékki tey mënatumaa génn di ko wuti dama doon génn lu ma añee tey mënumaa toog di kërug lu yaas la nag ndax li tax ma dëkk fi ba tey yomb gi ndax boroom mënu koo tëj xam na ne bu ko tëjee te nit ñëw ci tabax bi yàqu mu ne dee ma fay temps sax weer nga ne fi ma ne ko waaw. waaye yow yaay wuti tey lii lii nga dund tey jii diggante bi ak tey ndax am nga benn possibilité pour génn pour wuti lu xale yi dundee. fan laay jaar Fadel doon naa magum jëmm ndegam kër gee mel nii mbedd ma gis ngeen ko ni mel man mënu ma faa jàll yéen a tax ma yor bant tey jaar fi di dem sama doom ji góor ji moo fa mën a jaar di dem ah bu doonee maçon tey buñ ko doon kaay raaxal ma ci kaw du ko raax ndax ndox li ah lan ngay wax ñun la autorité yi ñu war laa dimbali ak bonne volonté yi. yi ak autorité yi ma leen di wax mooy nañ ma dimbali te yàlla tax. képp ku ma dimbal te yàlla tax yàlla dan la fay ngir lu ma waay defal rek defal ko kenn yàlla la koy defal ndax lii may wax moo ne ci man yor naa samay doom yu góor war nañoo liggéey amuñu lum liggéey seen liggéey baaxut waaw kuy liggéey téeméer nit ne la kaay fay ma ñeent fukk ma liggéeyal la ko liggéey bi du baax kooko dem feneen kii dikk toog ci kër gi bëgg nañoo liggéey de dañoo amut luñ liggéey man mii di wax ak yow amul fu ma dul dugal sama tànk bi di pour duur sama njaboot gi luñ de barke xaadimul Mustafa li may daj du ma ko wax nit ñaata at maa koy daj ëpp na fanweeri at tey samay doon doon ay mag yi jëm jàng mi ci fukki at ak juróom-ñett yor seeni lijaasa di maçon mun ñoo fexe ba am luñ liggéey. te tey fas yéene fanaan ci ndox. danu ah ci ndox mi ak def bii dafa jar a lijjanti Fadel coono bi yow xam nga ko ak yàlla ak yontu bi ak nday jaay mee ma dëkkal tey da nga jaar ci këram dikk fekk ma fii Fadel li may dund. maag yàlla ma ko teg rek ko xam ak yow mii may wax sama ité toujours bu ma la waxee rek nga daw ba dikk ne ma yaay am ma ko dundee maag sama njaboot Fadel bis ni ki tey barke Xaadimul Mustafa waxoon naa la ko bis bu ma génnee àdduna bala ñu may denc na nga taxaw yàlla na yeex fu ma mën a fekk samay doom a ngi nii di ma dégg bala ñu may denc na nga taxaw ndey njaay ngee yàlla na ko fekkee yàlla na fekk ma doon mag nag ba mu jot ma dem. waaye Fadel li may dund metti na de li sama njaboot di am na ci loo xam ne sax duma la wax ndax gor mënta wax lépp waaye gor day dund lépp. jërëjëf mbokki internet yu Dakar Buzz moom miin ngeen ko léeg-léeg may séddale ceeb bi sax ci Dakar Buzz social damay ñëw joxo ko barki dem rek laa fi gëj muy dund lu metti nag eh, lii yaakaar naa ne tey faute faute la gënu ko rëy faute bu rëy la ci Kër Massar dund nañ ko ci ndox mi nit ñi yëg ko. kon lan mooy problème bi ba lii bëgg a dalaat Kër Massar ana lan mooy problème Kër Massar ba chaque at ñu bëgg a dund ci lii dunu yëgunu ko lii nag la ñuy dund kon ki leen mën a dimbali dimbali leen te yàlla tax te xam ne sonn nan fa a yem yow mi tëdd sa kawlaal di nelaw yow mi añ jot nga teg sa bool añ lekk am na ñoo xam ne te ñu ngi ci jafe-jafe ci ndox mi amuñu lu ñu lekk amuñu fu ñu tëdd nañuy bàyyi xel askan bi te xam ne sonn nan teg ki ko dimbali mooy bokkam ñun nag duñu ko bàyyi fas yéene nañu ndimbal lu wàcc Dakar bëccëg ngeen ko jox wàllam parce que way jur leen ko jàppee way jur leen ko jàppee te loolu la ñuy moom waaye daal nii ñaa ngi dund tey ci ndox mi lañu yendu ci lan fanaan fas fanaan fekk lii dañagul te asamaan lii moo xew fii ci parcelle euh, euh, Kër Massar waaw sama doom yu góor yi taxaw di kii moom moom néeg bii xam nga ne néeg bii ah ku yor dara du ne néeg yi nga romb ku yor dara du bu nu amoon dara ne fii même bu nu amul kër sax nanu am lu nu fay lu yaas waaye amuñu ko loolu ma tax a ne ci ndox mi bi xale yi ne génn dama leen ne wul leen seen i bant ak seen i xeer bu ndox mi dikkee ngeen tooj ko léegi ndox mi jàll waaye balaa ndox may jàll fu mu ne fekk war a xëy xëyoo man ma war a génn génnu ma ca suba ba léegi génnu ma sama kër yaa ma tax a génn ca kaw lañ ne fii na bagage yaa nga ca kaw ndox mi boo ko tiimee fii da naan fii nu fi nit di dëkkee Fadel yéegal ci kaw nga xool. ci kaw xool leen